commission màkk bi alaaji bokk na ci. yi ñu wax entité yi gën a ndaw budget ci mim réew. déggoo ma de bokk na ci li gën a néew koppar mais xam nga lii li Seydou Ndiaye jaxate wax dafa garaaw. <laughs> même pas soixante soixante soixante pour cent alaaji. Mhm. ci ñoo xam ne def nañ déclaration de patrimoine <laughs> alaaji <laughs> képp kuy gérer budget boo xam ne dafa jot milliard. Hmm. da war a dem yëglu ci. waaw. Macky bi mu toogee 2012 def na ko. moo di ñaa wax na ko barki démb fii ci seen jotaay. Hmm. démb hmm. Macky bi mu faluwaatee ak léegi defu ko. mais set milliards la déclaré. bii ba mu déclaré. bii na déclaré. déclaré ay rakam lu leen tee dem déclaré yi. déclaré déggoo ma de ki dénk wàllu woowu moo ne gars yi ñëwuñu. ñëwuñu mais yow am nga possibilité gars yi ñëw yow yaay état yow Macky bu la neexee suba suba suba 40 pour cent yooyu des toog seen kër wax seen bu ñaay jaxase ne ko déclaré wuñu ñoo tey yow Macky nga ne pat. Abdou Mbow naan yat bi léegi mu génn. waroon na leen a yar yarin ngoo xam ni. yat ca boppam moo dul génn waaye yat wi xam nga la la dama lay jëlee fii yóbbu la fee defal la promotion na sàcc gi gën a tar na neex gis nañ fa benn député boo xam ne dafay dooroon met El Hadj Diouf El Hadj mhm. fan la dóor yi mujj mhm. dañ ko defal promo pour wan ko ne ko waa ji da koo mooy bii di ñëw na bakkan bi wax mhm. na bañuy rot moo tax lii xewee assemblée assemblée gars yi di kaas nii lii dafay dafay lu bees ah gisoo lu bees gisoo parking informatique. Euh, bu euh, délégation. alaaj bàyyil commission makka bi. 17 imprimante moo musa nek ba passation ci ba légui gis ñu augmentation ci ay imprimante. alaaj garaawul bàyyil makka ñu ñu gis mille euh, cartouches lañu utiliser. lolu équivalence su. trente imprimante la chaque imprimante ben cartouche par jour. xana imprimante bi day naan day naan cartouche. ba mu koy lek makka gi bu ma yëgoon du ci dugg. Hein? 17 imprimantes ñu déclaré 30 imprimantes chaque imprimante benn cartouche par jour. alaaji bàyyi la ilaha illallah. bàyyil màkk gi alaaji bàyyi màkk gi alaaji tëjal te bàyyi màkk gi. nañ leen tëj ci kanam.